asalaamualeykum inna lillahi wa inna ilayhi rajihoon mu mel ni rek ni soxna su baax soxna su yiw sell lool di doomu Mali waaye itam di doomu Sénégal soxna ki yaa ay dërëm boobu boo du daawoon yëkkati kàddoom benn kàddu rek la lay wax ni damaa bokk Mali waaye bokk ci Sénégal li ko waral mooy sama yaay di malienne waaye sama papa di sénégalais yàlla dénkoon ko nag ci wàllum xam-xam lool ci wàllum xob ci wàllum pàcc waaye nag muy jëmm joo xamante ni. bu baax lool xol bu sell gaaw a jooy lool ndax li ko waral mooy tey boo demee sax ba amoo tey ñëw tiis ko sa soxla ci wàllum paj wala sax ci wàllum poos dala koy jox waaye di ki ànd ak pour xéewal maanaam di jooy kooku mooy soxna ay Aidara Mboup mën lool wàllum social ki nga xamante ni nag bëgg lool ki nga xamante ni moo di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye amul sago lool ci sëriñam bu ku ko xam-xamee kook moom di sëriñ Babacar si radiyallahu taala anhu démb ci samedi bi nag la fi bawoo à onze heures du matin tey jii nag ñu fas yéene ko jébbal boromam fee nga xam ne ci suufu bërëb sell ba di Tiwaawan ci wepp soppeem ba sëriñam ba di sëriñ Babacar si radiyallahu taala anhu aouzu billahi mina sheytaani maa ngi nuyu waa Dakar yëpp nuyu réew bi yëpp ruy sama uh, réew Mali tam fi ma juddu fi ma yaru eh, nuyu tam waa Dakar tam fi sama cosaan nekk ma sant yàlla subhaana di ko gërëm bu baax baax ak yeneen sallallahu donc euh, ñu gis ne que yow sa euh, sama liggéey mooy voyante seet ak faju ak lu bare bare ci biir bare na li ci bare xam ne na fi sant yàlla bu baax baax di ko gërëm. lan la dugal si faju boobu tam fekk naa ko suñu famille fekk naa ko foofu sama descendant mooy Mor Fidiane Diabaté mooy Alimami Samori Touré moom moo nekkoon euh, griotom moo nekkoon euh, sëriñam moo ko ñaanal tam. <laughs> donc euh, sànq yaa ngi doon expliqué bi fu mu jógee sama rawaane moo sant Aïdara mais man Kia Mboup laa sant mais sama rawaane moo sant Aïdara Tamba Bami Aïdara ma ne fa Kia Aïdara Mboup donc accident yi waxoon ko ko ci doom noo ko gisee woon ba ma ko gisoon ma ne euh, Macky baax na si bi bu baax baax am na ñu laaj ma Macky mooy jël nit yi def ko sacrifice ma ne déedéet Macky amul bakkan nit bu jël ko di ko def sacrifice yàlla subhana taala yaa waxab yaa yu yaa jul jëla barkiram yàlla tu kabiru moo sak bakkan moo rot bakkan mun na def rek seen heure jot na rek ñuy dem mais accident bi tam du noonu du neen ko noonu il faut ñu def sacrifice wax na ko benn du ñaar ñu seet si euh, lébu yi seet si santike yi seet si rabu régime euh, yi nekk fi l'islam yi ñun ñëpp ñu boolo di ñaan. ñaan bi nan lay demee dañuy tuur deret waaw am na ñuy tuur deret pour borom dëkk bi dëkk bi dafa am borom. ku <laughs> bi dafa mere parce liggéeyu rawaane lañ def man. man ka liggéey rawatina naa mais borom dëkk bi dafa mere ndax am na lu bare bare bare am dëkk bi comportement nit yi ak ni ñuy def neexu leen moo tax lu bare bare bare mu ngi fi. accident bi daal da nga jàpp ne que euh, dëkk bi muy kontaan moo waaw. solution la man solution ma bëgg génne bindi na ko sax ça fait pas 4 euh, jours. maa ngi génne sacrifice yi man am na benn fête ma war a organiser incha allah après la campagne dañoo war a tudd rek invité Santy Gueye invité Lébou yi invité Serigne nekk Mali invité Serigne nekk Dakar ñoom ñëpp invité dañu def doon booloo def sacrifice bu mag ak kilifa diine itam Nord Foire ci sama buntu kër dama bëgg wax ne yàlla subhanahu wa taala mu tekk nit de kenn mënu ko dindi loolu kese laa bëgg wax rek pour waa Sénégal yi xam nit yi dee ñu ngi euh, ñu tey ñun tam ñu nekk fi tam ñu tam ñu xam ni mu yàgg yàgg tam ñu tam dinañ dem fekk foofu waaw yàlla yéex. kon daal ñi nga xamante ni euh, accident bi am fële nekkul sacrifice nekkul dara daal rabu dëkk bi rabu après ñu ñu dem jëli gàllaaj di ko dugg yi yëpp mi ngi si terrain Dakar façon yëpp même doomu aadama yi suñu ko am ko si terrain bi loolu yëpp mi ngi si <laughs> même chose la rawaane suñu mere suñu jaar ñu def lu bon. fii ñu fii ñu ñu def lu bon loolu la ñoom suñu meeree baaxul loolu la. léegi euh, yan sacrifice nga jàpp ne lañu war a def. dañoo war a tuur deret très rapidement Macky dafa war a tuur deret parce que su tuuru deret taw bi dina ñëw mais <laughs> nit yi bare dina dee dee bi dina bare trop trop Dakar loolu laa gis. kon nag mbokk yi soxna ay Aidara Mboup benn cadre la doon yëkkati buy conseiller danaan képp koo xamante ne respecté woo sa wayjur say ñaari wayjur man mënuma laa faj kon loolee yëpp daana jàngale loo xamante ni ku fonkoon wayjuram la kon nag ki ay Aidara Mboup ñoo ngi lay ñaanal allah buur bi subhanahu wa taala yóbbu la ki aljana yi gën a kawe wane la ak sa soppe ba sa sëriñ ba sëriñ Babacar si radiallahu taala anhu kon mbokk dañ leen di bàyyi ak éléments yi nga xam ne moo ngi jàll mu mel ne xol yëpp tooy nañ asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. maa ngi leen nuyu ku nekk sa tur ak sa sant ñun maa ngi jégalu tam di baal ak àdduna bi yëpp nuyu lébu yi santige yi manga yi yëpp la an wi man li ma xam li ma xam maa ngi leen nuyu yéen ñëpp maa ngi waxtaan sëriñ si yi nekk internet dem leen wuti xam-xam xam-xam du gaarawaale xam-xam du xeex xam-xam du wax bu bare xam-xam du yére bu nganda xam-xam mbaxane bu nganda xam bopp bi la ak bàmbeel biir xam-xam sutura suñu sëriñ nee ne su ngeen wutu xam-xam nga xool nit yi xolam nu mu tool ba pare nga jox lu mu tool nu mu bëgg mais su nga ko jox àdduna dina rey àdduna bi yëpp waa xam-xam wutu leen xam-xam ngeen faju àdduna bi yëpp mooy génn ngeen nekk si internet bi di amee di zore nit yi waa maa ngi jégalu di bal ak àdduna bi yëpp jërëjëf ku ci aw lii yàlla na nga siyaare ji